rapport Cour des comptes bi nga xam ne euh, dafa càmbar sa mairie. Mhm. waaye tamit dafa càmbar euh, sa passage au niveau du ministère euh, de la pêche. Mhm. ñu présenté ko comme une gestion scandaleuse. kan ko présenté. non ñu ko ko voilà ñu mhm. ñu présenté ko comme une des choix inop inappropriés des choix inopportuns euh, ay doublement de ay ay dédoublement euh, dans des dans des marchés de façon générale bi nga lire le rapport de la Cour des comptes euh, concernant sa gestion au niveau de la du ministère des pêches ban sentiment nga am. on traite d'abord le ministère. le ministère d'abord. d'abord damay damay wax et ça c'est pour nous tous d'abord moi j'ai été directeur de l'audit et du contrôle de gestion d'une très grande boîte. CSE oui donc présent dans à l'époque dans sept pays euh, donc xam naa de quoi il s'agit l'audit euh, euh le contrôle c'est pas c'est toujours utile pour une entité mais aujourd'hui li may ñaan euh, muy la corporation la presse ou les populations il ne faut surtout pas faire dire en rapport d'audit ce qu'il n'a jamais dit c'est le cas mais c'est quasiment que ça li ñu wax loo c'est quasiment que ça Maïmouna ah. et on peut prendre des exemples on peut prendre des exemples maintenant la cour quand elle vient elle vous écrit vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord c'est contradictoire après elle elle fait sa ah, révision waaw dafa jafe nag xam nga mhm. dama lay jox rek par exemple boo xoolee rapport bi ñuy wax bu dee mairie la il y huit ans mhm. bu dee euh, nu mu tuddati euh, ci wàllu pêche bi fas parce que foofu lañ nekk ñetti ministre ci seen rapport dañu ne c'est la gestion de ces trois ministres mhm. mais man damay yem ci sama gestion liñ fa gën a gën a gën a yëkkati may mun a mu am solo. Mm-hmm. Euh, parce que dans dans le rapport ah euh, il y a pas que ñuy laaj man yi ministre bi les gens sont assez responsables pour di ci tontu mais liñ ci gën a laaj par ma jox la l'histoire du dragage de la brèche de Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, là aussi il faut que bu ñuy bind on met tout qu'on mette tout pour que ñu comprendre ce dragage là moi quand je dama fekk mu nekk une extrême urgence à l'époque mm-hmm. booy fàttaliku quasiment chaque semaine on vous parlait de moi. Mm -hmm. on m'a insu ma lancé un appel d'offres. may mun a dóor dama damay jël voilà parce que yii moom lu yàgg la xam nga boo jógee ci ab kuréel dafay xaw a jafe mais appel d'offres bi mu génnee dama lay jox lii. Mm-hmm. ñaari sociétés yi ku ci nekk ñaata la proposé. tchèque les chinois ils ont proposé combien vingt milliards. Mm-hmm. on est d' Van Oord bi ci topp ils ont proposé onze milliards huit. China Harbour Engineering Company. Ah. moom dafa proposé vingt milliards trois cent seize millions. merci Van Oord proposé onze milliards cinq cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatre cinq cent et quelques millions. que les milliards et quelques. alors que le budget estimé. et de cinq milliards. non c'est-à-dire que man loolu bi ñu ma ko présenté. xam nga nag mm-hmm. ministre aussi du def terme de référence du du recevoir ay offres du ko dépouiller et cetera loolu aussi il faut nit ñi di ci bàyyi xel pour bañ a personnaliser l'État c'est un ensemble. Mm-hmm. lii bu mu ñëwee ci man je me suis autorisé de demander à ce qu'on le classe sans suite parce que c'était trop cher et ça dépassait le budget que j'avais bi ma demee rendre compte je pouvais perdre mon poste pour ça. Parce que la première réaction du président a été de dire Alioune Ndoye, ça fait 17 ans que l'État tergiverse sur cette question. 17 ans. Il est temps de régler ça. Donc vous continuez, il faut régler cette histoire. Parce qu'on a trop de morts au niveau de la brèche. ñu lancé waat appel d'offres may mun a chèque bii nga jox ñu la wax fii 20 milliards moo gagné waat appel d'offres boobu à 7 milliards et quelques. Mm-hmm. moom la moom ngay gis ci parce que xam nga 11 milliards yi waxuñu ko ci Cour des comptes. c'était important ñu wax ko dañu ne rek après résiliation de marché mais dañu waroon wax fan la parce que moo toppoon rek marché marché j'allais l'attribuer à onze milliards huit onze milliards cinq ñu résilier boobu que ñëw gagné à sept milliards cinq bi mu koy gagné la cour en parle d'ailleurs quand on m'a amené les résultats de la de la commission il y a Démé mooy bon Démé c'est le diminutif man c'est ça que j'ai en tête qui moins cher mais qui avait été éliminé pour le délai parce que urgence bi ma lay wax qui avait été éliminé parce que moom dafa ne délai bi nekk ci appel d'offre moom mënu ko def il lui faut un supplémentaire donc ça a été attribué à ces chinois là ces chinois là bi ñu gagné loolu on était tellement content si vous vous souvenez revoyez les images je les ai amenés jusqu'au dañ dajeek président ñu tàmbale ils devaient faire ce truc dans un délai très court précis mais quasiment dem nañ ba délai bi waaj jeex en tout cas consommé nañ ci li ci ëpp demee mu ngi ci ay courrier rek di constituer un dossier mais il faut d'abord ñu euh, def une sorte d'avenant parce que moom mën mënu ko def à ces prix là ma demee ba loolu ces ces défaillances constatées sommation yi ñu def ko euh, ma décider de résilier ce marché parce que li ñu gëmloo Sénégalais yi nit kuy ut xaalis ci ay entrepreneur doo am fit ñu jox leen ay milliards nga koy résilier. mais dafa bari luñ la épinglé. ci ah, ay ay ay contrat yu. yéen journalistes yi vous aimez ce euh, français wala euh, parlez autre chose. ma ne dafa bari luñ la joxoñ baaraam. Mm-hmm. ci ay contrat yu yu sa ministère signe ngeen résilier ko alors que. le la première entreprise. jotoon na jot euh, des des avances de démarrage. ministre déedéet <laughs> pour te dire que kii effectivement. ci à la mairie aussi. Ouais, on en reparlera tout à l'heure tout à l'heure voilà. vous clarifier. la mairie aussi permettez-moi nag aujourd'hui parce que si on n'a pas toujours occasion. ma leeral. mais ñëwal ci bii waaw. man ma ma leeral man ci mairie bi parce que moo ëpp ay kii sax parce que mairie bi aussi c'est depuis 2016 ça huit ans euh, ma leeral donc kii bi ñu xamee ni fas yéenewul def liñ ko laaj ci prix bi te ma mënewoon service yi vous avez en tout cas dans le rapport. li ngeen arrêté mooy ñu éliminer quelqu'un qui est moins cher et mais à cause du délai il est hors de question ñu permettre ak kii muy am un délai supérieur parce que sinon on peut pas justifier ce paiement là donc loolu moo indi ñu annuler ce ce ce ce comment dirais-je ce marché là. Mm-hmm. biñ ko annuler alors que man rek wax naa la urgence bi ñu ma waxoon il faut ma def ko ci la ñu laaj DCMP son avis pour ñu discuter avec Deme boobu ngay wax. demee bi nga ñëwoon il était moins cher parce que bi ñuy lettre bi sax gis naa courbiné dañu ne les prix unitaires son moins mais justement offre boobu qui était inférieur à bi moo tax ñu euh, décider liggéey ak ñoom et demain ils sont connus au niveau xam nga dragage y a quatre cinq grandes familles au monde qui le font il Sénégal yi xam loolu aussi on a fait euh, ce ce truc de comment dirais-je ce ce gré à gré autorisé ñu def à huit milliards et quelques loolu la cour bi naan on a fait un truc onéreux parce qu'il compare à ki génn léegi mais moi in fine vous verrez que moi j'ai j'ai plutôt gagné de l'argent nan nga gagné de l'argent euh, oui alors je dis euh, ñu dem à huit milliards et quelques mais on a discuté les conditions de ce marché là pourquoi parce que dans le dans le dragage euh, d'abord tu as un marché bi mais vous payez ce qui est fait maanaam les quantités draguées la Cour dit oui, c'était à 8 milliards, mais on a payé moins. Oui, parce qu'on a dragué moins par rapport aux études bathymétriques qui étaient là. C'est une estimation par rapport à des études précises. Puis il dit, à la, à la, à l'embouchure, il faut draguer à 5 mètres, c'est telle quantité que vous allez sortir là-bas. Le chenal, tout le long du chenal jusqu'au port polonais, on le met à 3,50 mètres, c'est telle quantité euh, de sable et autres euh, draguer. Mais dans, à la réalisation, nos services qui, tu ne factures que ce que tu as fait maintenant il y a ce qu'on appelle la fameuse marge de tolérance qui est dans même que le bu nekkoon 7 milliards et quelques mënoon na in fine être à plus de 8 milliards du fait de marge de tolérance parce que li ci nekkoon mooy dañu naan jusqu'à 50 centimètres de plus fi nga ne par exemple 1 mètre 1 euh, mètre 5 jusqu'à 50 centimètres de plus da nga ma koy fay au-delà c'est moi qui perds entreprise bii bi ñu koy defaat dañu leen ne non man jusqu'à 35 centimètres du ma la fay de trente cinq à cinquante mën naa la fay le reste yaa koy perte moo waral in fine li ñu fay entreprise bi ñu naan c'est onéreux cour bi moo koy bind d'ailleurs c'est sept milliards cent et quelques xam nga se inférieur ak bële bi ñuy résilié woon déjà mm-hmm. donc boo jëlee loolu nag bëgg dugal ci bopp nit ñi que ñun mënoon nañ réaliser loolu à moins cher que li ñu def yaa ngi leen di jumloo parce que mënoon nañu ko réaliser a onze milliards et quelques on l'a fait à sept milliards cent donc l'État a économisé combien plus de quatre milliards muy benn kii ko jiitu sept milliards deux cent et quelques la woon commencé on nañu wax ni mënu ko def ci prix boobu et je vais vous expliquer pourquoi mënu ko woon def parce que en réalité brèche bi bi ñu ko lancé la cour ma di d'ailleurs dans pour deme que les les prix unitaires ont changé augmenté oui parce que dès que les conditions changent c'est une bi muy jox un une offre de six milliards et sa DRAC qui est adaptée elle était là en Guinée et dans le offres ils disaient en deux jours nous serons sur site et nous pourrons commencer les travaux en deux jours mais quand ils n'ont pas eu le marché une DRAC je vous dis c'est quatre cinq familles qui le font au monde elle part quand on se met d'accord des mois après sa DRAC venait je crois des pays nordiques mais le prix de l'ameneuse de ce matériel n'est pas le même que quand il venait de Guinée mais Cour des dafa jàpp ne euh, les prix de ce marché étaient dans du dragage mënoo réviser le prix euh, unitaire dans ce délai là parce que en plus c'est un délai court un délai qu'on donne à quatre mois cinq mois il est court mënoo ci y a aucun marché où on révise des prix comme ça mais je dis par contre doo fay quantité non draguée dragage quantité boobu qui est estimée parce que c'est des études bathymétriques euh, le fleuve et d'ailleurs j'ai vu des reproches qui me disent pourquoi euh, je crois même il a des gens de la société civile qui a voulu s'engouffrer dans ça en disant waxoon naa la machin euh, c'est c'est se tromper parce que ce fleuve la il est dynamique euh, je vous donne un exemple à chaque fois qu'on ouvre le le fële li muy indi ci terme d'agrégat yi dafay bëri mais ñun xamoon nañ les techniciens m'avaient confirmé que euh, li may dindi noonu maanaam la la comment on appelle ça la l'entretien pendant un an une fois ñu paree dragage bi dans le un an du laaj entretien donc j'allais le payer loolu la dindi pour être à ce niveau là boo demee dans les marché du de onze milliards et quelques il y a ces éléments là. pourtant euh, Cour des comptes dafa demander à l'ARCOP de diligenter une enquête. mais, sur le marché relatif aux travaux de dragage non, et de balisage euh, de la brèche de Saint-Louis. Euh, le ministère à la société Dred Dredging International. benn beneen bi euh, la Cour mu ne. Mm comparaison bi nga xam ne def nañu ko entre le montant inscrit le contrat. et le montant effectivement payé dafay révéler une différence de 998 millions 283 mille 269 euh, francs CFA taxawal foofu tuuti rek waaw loolu yow léegi da nga ma bëgg a reprocher ni marché bii signé da nga ne man reproché non yow je sais c'est voilà <laughs> euh, je parle de la l'opinion tout ce que vous voulez ou la cour voulez me reprocher marché bi waroon naa euh, total bi huit milliards et quelque la woon. Mhm. mais in fine man amal naa état bi li ma bëgg fay sept milliards cent donc économiser ko neuf cent et quelques millions ma bëgg wax ni loolu faute la te ma expliquer la léegi lu waral ñu fey leen moins donc en tant man gis naa sax ku bind première page de son journal en parlant d'un écart de huit milliards quelque ça il a pris le total de ce marché la en parlant d'écart nga dugal ko ci as kii bopp emploi xelu nit ñi donc là pare am laa may mën moo tax ma ne taxawal foofu yow yónni nga ma marché jox ma dépense ne ma lii ak lii ak lii laa soxla pour njëg yi lii la cinq mille francs la ma dem indi la loolu ci quatre mille francs dama laa sàcc xam nga mais mais xam nga li bizarre la cour dafa ne la la la cour des comptes dafa ne euh, le contrat bi ngeen conclure Euh, ak ak avec cette société là est un contrat à prix ferme non révisable waaw mu ne aucun avenant n'a été conclu entre les deux parties donc le fait que la société chinoise là ait renoncé à ce montant là euh, prouve à suffisance le, que le non pas la société chinoise non euh, la, la société de, de dredging euh, oui. Mm-hmm. internationale mm-hmm. mu oui. ne le fait que la société ait renoncé à ce montant là loolu dafay prouver à suffisance le coût onéreux du contrat. mais de toi mois moi. de toi à xam nga boo defee tout un résumé bu dee phrase bi nga bëgg pour mu permettre la nga garder la tous les sachants de ce secteur là bi ñu liiree loolu c' est la même réaction mais je veux pas rentrer dans une ce genre d' mais je t' explique lu xew lu xew mooy signé huit milliards marché waa ji war na huit milliards yooyu ça correspond à telle quantité de dragage dans le chenal a telle quantité de dragage au niveau de l'embouchure jox nañ la yow li nga bëgg maanaam tirando bi nga bëgg cap capacité en tout cas chenal bi un mètre cinquante yi tout le long jox na la ko jusqu'au port polonais jox na la cinq mètres yi plus même au niveau de l'embouchure te yeggul ci quantité bi mu waroon draguer da nga koy fay c'est du c'est du bon sens comme je dis tout à l'heure man à la rigueur mais dañ dañ ma dañ ma kon dañ ma delloo neuf cent millions yi bu dee erreur parce que encore une fois loolu lépp trésor trésor fay de du du jaar ci ministère bi kon on ne peut pas avoir été rigoureux comme ça pour justement ne pas dépenser neuf cent et quelques millions au profit d'une entreprise nga bëgg ko génne pour ne lii ça prouve que c'était onéreux ça prouve plutôt que l'étude était bien faite le marché était bien euh, négocié c'est ce que ça prouve et s'il s'agissait de faire de l'onéreux je l'aurais fait à onze milliards parce que chèque bi mun naan il c'est c'est honoré par rapport à chèque sa première offre était de vingt milliards est-ce est-ce que c'est sérieux d'un appel d'offre à l'autre passer de vingt milliards nga dem à sept donc bu ñu naan onéreux si je voulais faire quelque chose d'onéreux pour le même travail j'aurais conclu à onze milliards et quelques